islam diine diine diine jikko la ndax sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy suñu royukaay ba ko yàlla tagg tagg ko ci juddu tagg ko ci xam-xam tagg ko ci taar tagg ko ci alal da ko ne ci jikko yu rafet wa innaka la ala xuluqin azim say jikko jikko yu kawe la sa moralité la kon nit ki bu ñu tax te dañuy wax nit ki mën nañ koo booleeg sa xam-xamam toroxal mën nañ ko booleeg alalam toroxal mën nañ ko booleeg juddoom toroxal waaye kenn du boolante ak ak yaram toroxal kenn mës koo gis kon ab yara tax loolu moo tax nag sëñ tubaab bi message bu rëy ba bi wax ni bu ko yalla ya xamal li mu war da ko ni rabbi ashabaka bil him wala turabbihim bi dal yar len yaral sa ñi ngay andal ci ci yitte ju kowe te bu len yaral ci jang rek dem kon mbir mi dina yar la islam ci dina yar la kon tariqa yi nga xamne ci l'islam la balle di ay école de école école ya yarate la école yarate la xam dafa jëkk jikko taxajuk a jóg naka jekk baaxoon nag naka jekk amoon dafa rawati ni ko waxe jamono ji legi dafa jaxaso li fi mën a sànq nit bari na xéewal yi bari na autorité parentale yi manqué na li mën a influence bari na du ma du ma dugg sa média ndax yéen ñu baax yéen xam naa bokk leen ci yéen waaye am na ci certains médias certains médias yoo xam ne boo ko toppee la génn ak la wane la yàlla xam doy na bu ko defee delloowaat ci yarub démb bi delloowaat ci topp yàlla delloowaat ci ragaloo nit ñi yàlla delloowaat ci jox parents yi seen wàccuwaay delloowaat ci nangu wii ci ndigal loolu mooy li nga xam ne rek moo mën a sooy àdduna ndax ku bu yar rek gën la sëñ Tuubaa mbax mi nga wax daana wax bu ñu mësaan wax nit du wax ne ko ko jur day wax ne ko ko yar wa ndax yar rek moy moy tax ñu nit ndax daanaka ki liñu liñu liñu séparer ñu ak ak ak ak ak animaux yi moy ab yar rek wa ab yar moy tax ñu xam suñu bop ab yar moy tax ñu xam lu ñu jombu ab yar moy tax ñu xam lu ñu ragal ab yar moy tax ñu jox ak nit war man nit ak ku mëna doon ak fu mëna bok wa waaw kon nag boobu loolu moom mooy li nga xam ne rek ci lañu wara delu wat ci lañu wara gëna focus suñu yëngu ak suñu dal ndax moy li nga xam ne rek mo jax si àdduna occident gi ñu toppandoo ci yu bare bare bañu de bañu bañu bañu bañu dévier seen yar yar ñi ci matière matière gis nga déviation yi mu indi dem na ba maamu léegi bañ koy rëccu te mënatuñ caa génn ndax la ko waral mooy yaruñu nit ki ci yàlla surtout yar ko ci ragal yàlla yar ko ci ci diine yar ko ci warmal ay waajuram yar ko ci warmal nit doomu aadama en tant doomu aadama ak fu mu ko a nekkee rek te loolu mooy li nga xam ne moom la islam jàngale ndax islam ci foofu diine yar la inna haadi qul haadihi eh, eh, eh, sabiliya ad'u ilallaahi ala basiratin ana wa man tabi'ani yoon ak njub mooy yoon nga xam ne ci la ant bi nekkoon alayhi salaam ci la ñu baax ñu nekkoon si li liñ tabax lépp ci lañ ko tabax kon loolu mooy li nga xam ne rek ci la ñëpp war a dellu ku nekk da nga caa war a nekk rek nekk modèle te Serigne Saliou Mbacké daal wax ne yoonu murit ak taalibe bi du loo xam ne da ngay wax ne dem leen ma fekk leen fa du loo xam ne ngay wax ne maa ngi dem ñëw leen fekk leen fa da ngay wax nañu ànd dem dañ koy ànd kon ñi yaraate ci bopp ñu war a nekk ay waa jur yi ak parents yi ak ñi yaraate ñoo war a nekk ay modèle yoo xam ne seen seen seen njaboot ci la ñuy ci la ci la ñuy roy boo seetloo mag ñu baax ne daan dañ ko bëggoon ba kenn ki nag daanaka daawoo yar sa sa njabootu bopp dañ ko jox ko ku la mu yaral la ko waaw moo tax Sëriñ Tuubaa dañuy wax ne bañ ko waxee ne ko nu ñuy def am doom ju baax mu ne doom ju baax yàllaa koy mayee waaye mën nañ ko sabablu yàlla moom lu ne yàlla ko def waaye mu ne mën nañ ko nañ ko sabablu mooy da nga fexe ba am ko soxna su baax soo ko amee nga fexe ba ko turu bu baax soo ko wutal baax bi nag nga jox ko ku baax mu yar ko waaw kon da nga fexe ba am soxna su baax mooy soxna su am diine soxna su sell te boo ko amee ko tur bu baax su su su su su dëgëree nga jox ko ku baax mu yar ko waaw bu ko defee rek ñaan ñaan ko mu jub ñaanal ko mu jub boole ci waaw ko defee rek te ñu it lu ñuy def nañ cee boole ñaan ndax ñaan mooy li nga xam ne mooy muxu la ibaada la xam dañuy wax ne nit jaamu jaamu yàlla bu doon nit dañuy wax ne jaam mooy cerveau bi mooy li nga xam ne mooy cerveau bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy yuuru ji waaw kon bu ko defee lu ñu def lu nekk rek euh, euh, yonent bi wax tam adduwaa silaaxul mumin ñaan mooy ngànnaayu aji gëm kon yar bi dañ ci war a boole yar di jubbanti di wax di dégle di tere nekk modèle bu nekk di ñaan boole ci